ngir ñëw di dàkk li nga xamante ne mooy siyaare yi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader macha allah ñun fegoo fekk kenn koo xamante ni kenn dootu ko présenté te ci yoonu Mouride muy Serigne Abdoulahi Diop Bichri fas yéene koo dékk rek suñu micro ci euh, ay tënk yu gàtt yoo xamante ni rek dafay jëm ci bis bi nga xamante ni tey jii mën nañ ne lislaam gépp ko war a màggal waaye rawatina yoonu Mouride waaye niki tey ku fi ñëw rek saxool seet bu baax a baax a baax ci taxawaayu Mouride yi waaye rawatina fii ci kër Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader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 mi toog jataayu Serigne Touba yàlla na ko yàlla dolli wér ak kàttan yàggal ko sunu kanam ba naal yëpp mu am ci lu féete kaw njortam di ñaanal na noonu Serigne Cheikh mbakke Abdoul Khadr mi toog jataayu Serigne Abdoul Khadr ñaanal seen rakk ju baax ji Serigne Bassirou Abdoul Khadr ñu nekk ci biir këram di ñaan ci barke Serigne Touba maamam ak li mu yoral maamam muy kaddu yoon wi yàlla na ko Serigne bi dollee sàmm yàlla na Serigne bi guddal fanam yàlla na Serigne bi defar mbiram yëpp biir ak biti ndax taxaw na ci liggéeyu maamam sagal na yoon wi sagal na lislaam ci tegginam ci yaram ci xamxamam ci dalam ci bëggam lu baax déglu ludul sëriñ Touba yitteem jëpp sëriñ Touba alalam jëpp sëriñ Touba ak njabootu sëriñ Touba yàlla na ko yàlla sam di nuyu bu baax nag mboolem média yi fi teew di la ci jiital yow sëriñ Mouhamadou fay ànd ak waa Touba Vision waa Guy Mbind TV ak yeneen média yi ñëw yëpp di couvrir bis tey jii xam ngeen ni mooy bisu sëñ Abdoul Khadir kan mooy sëñ Abdul Xaadir doom la ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak soxna Aminata ni Bousso mu ngi gane àdduna ci bis bii nu taxaw tey di ñetti fan ci muharram muy weeru tamxarit di ndorteel at mi yàlla dogal mu gane àdduna bis bi gën ci bis yi di bisu àjjuma kan mooy sëñ Abdul mu ngi feeñ ci 20 novembre 1914 mu ngi gane àdduna ci njaareem albuqatul mubaraka mu ngi ganee àdduna ci ndaam daaru alimul xabir waaye booba mu nga fekk Serigne Touba Njaareem ci albuqatul mubaraka ñu yëgal ko xibaar bi mu yebal euh, jàmbaar ja yebal rakkam ja yebal murid saadix ba yebal ka nga xam ni gërëm na ko muy maam Thierno borom Daarul Muxti ngir mu dem ndaam ngir ñu tànnali ko aw tur mu ni ko diir bi ngay dem nag di ko tànnali aw tur ba bi ngay dëppaat di ñëw ci kër gi man ngaa diibal yoon wi man nga koo yeexal ndax sunu borom dogal na ci gan gi ma am yow miy joxe ji tur wi ku la fi gis yàlla jéggal na ko koo fi gis yàlla jéggal na ko te aw yoon ku ko sóobu sëriñ Modou fay ñett la mën a dal da ngay dabe wala ñu dab la wala nga daje da ngay dab kenn ci yoon wi wala kenn dab la ci yoon wi wala nga daje kenn ci yoon wi Cheikhul Khadim ni ko ci dara yi ki ma am tey sëñ Abdul Xaadir nga war a joxe ji tur wi koo fi dajeel jéggal nañ ko koo fi dab jéggal nañ ko ku fi dab jéggal nañu loolu kon bisam buñ koy màggal ku fi taxaw it da am yaqin ni jéggal nañu la ñu taxaw tey kon ci Touba ngir fàttaliku jàmbaar jooju liñ ciy jàpp nag mooy ñu ngi fàttaliku murid sadiq sëñ Abdul Xaadir ñu ngi fàttaliku alimu kulli fannin borom xam-xam boo xam ni fànn yëpp la peeg ñu ngi fàttaliku borom xam-xam boo xam da daan jëfandikoo xam-xamam di ko jëfe teg jëmmam ci istiqaama ci siraatal mustaqim nu ngi fàttaliku sunni ku dunde woon sunna nu ngi fàttaliku ku njaxlaf ci jaamu yàlla ku nuru sëriñ Tuubaa ci melo ci doxin ci doxalin ci jëmm ci wax ci bëgg yàlla ci fonk waxtu wi nu ngi fàttaliku koo xam ni diir bi mu fi nekk ci xilaafa gi yàggul waaye liggéeyal na sëriñ Tuubaa lu rëy rëy rëy muy fukki ak benn waaye diir bi mu fi nekk ci imaama gi mat na ñaar fukki at ak ñaar muy diggante 1968 ba 1990 jiite na ci junni al aljuma ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett 1243 vendredi jëmm jooju sëñ Abdul Xaadir jëmm joo xam ni bu déggee nodd daana wax ni jullit xaqan bu déggee nodd dafa war a teewlu nodd gi comme ku nu jël paaka teg ko ci putam di ko rendi ni muy tiite ni la war a tiite bu déggee baatu yàlla jub mu ngi daan wax ni jullit xaqan bu déggee nodd noonu la war a teewloo waaye bu nodd daanoo ba muy wuy ji julli dafa war a mel ni kuñ ni ko sa kër a ngi lakk sa njaboot nekk ci biir ak sa alal na muy gaawee daw di leen wàllu ji noonu la war a wuy jee waxtu yàlla wi kon sëñ Abdul Xaadir dafa am alaaxa bu mag bu mu am ak asalaat julli mu nekkoon imaamu aima yi imaam yëpp moo nekkoon seen njiit moom sëñ Abdul Xaadir yàlla defal ko tawféex ku mu jiite julli yàlla jéggal la ku mu jiite julli yàlla jéggal la am na ku ni ko dégg naa ñu ni koo jiite julli yàlla jéggal ko mu ni ak ku ma jiite julli ku mu jiite julli kon kooku mooy siñ Abdul Xaadir moo daan tamit siña ñaan yi ñu nangu ko loolu maa ngi ko jëlee ci bàyyaat ma deer mu ngi dëkk fii ci dëkk bu ñuy wax Njàmb Faal ci wetu Louga yoon wi jëm Pootu sëriñ bu mag la bokk ci tariqa tariqa Cheikh Ahmadou Tidiane maandu na ragal na yàlla fajkatu aajo la dañ koy rang yàlla dafa dogal mu baax lu baax fu mu nekk ñor ko moo ma nettali lii ci làmmeñam ni ma fa la neex sax nga koo nettali ndax maa ko dund nee na 1958 dafa nekkoon ndar bi mu nekkee ndar mu tëdd fa guddi gént sunu boroom mel ni ku ko yóbbu màkkatal mu karrama nee na waxtu tàkkusaan la gis ci gént gi mu nekk ko màkka mu bàyyi ko nii ci penk bi di ñëw nee na bi muy ñëw mu ci peggam ci càmmooyam jëmm ju tuuti mu ngi sol jàllaabe bu bëla sol dal marakis yu mboq solum laafa kaala woo kaala gu xonq mbooloo mu bari topp ci ginnaawam bàyyi yaat ma nee na ci gént gi ma dawal sama bët gis mbooloo mi ko topp ci màkka ma laajte ni kee ku mu doon nee na am ku di ma kële Cheikh Abdoul Khadir Mbacke la tudd kële doomi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke la ca senegal nee na ma ni ah mooy kan ñu ni ma jëmm jële ngay gis saa bu yàlla nar a nangu ñaan bu jullit yëpp ñaanee ba àggal moom moo koy signé yàlla door koo nangu bàyyi yaat ma deer nee na loolu sama nopp moo ma ko may ci gént nee na ma yeewu 1958 ca Ndar fi ma ko génte tiit lool ma nettali ko samay xarit ñi ma ko nettali woon ko ñuy wax Moussa jóob bokk na ca yàlla dogal 1978 ñaar fukki at après bi ONCAD amee problème ma ñëw Mbàkke seet si Moussa jóob mu ni ma gént ga nga ma nettali woon tey mën ngaa dem ziyaara ji sang bi sëñ Abdul Xaadir abal ma daamaram nee na ma jël daamar ji ñëw fii Touba fekk ko fi nee na bi ma ñëwee ci këram gii ci gede damaa dugg ci biir kees gi fekk ko mu sol nu mel ni la mu soloon mu bëla ak dàllu maraakiis yu mboq kaalawu kaalaam ko xonq googu toog ci ëtt bi waxtu tàkkusaan ma raam ba àgg nuyoog moom ñu saafonte ma wax ko dama amoon yitte ñaan ndigal ngir nettali la ak gént mu ni ma bisimilah. ma wax ko bay bëgg a àggal ni ko dañ maa wax ci yow ni mu ni ma foofu jor naa yem li ci des jarta àggale tàllalal ñu ñaanal la daal ni ndax dem nga màkka ma ni ko déedéet mu ni waaw baax na incha allah dégg nañ nee na juróom-ñaari at lañ ci teg 1985 maa ngi moom ñu dajewaat màkka waxtu tàkkusaan ma gisaat ko ci melo woowu kon day wane ni kii moo daan signé pour yàlla nangu ñaan yi jëmm la joo xam ni tam waa kër sëñ Touba gépp a ko fonk ñëpp ku bokkal sëriñ Touba rek soxla woon ñaanam ñoom ñëpp diggante sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mouhamadul Mourtada ngir nuru ga sëriñ Touba ngir istiqaama ja ngir sàmm ga ngir ragal ga yàlla ngir bëggam ga moo tax ñëpp doon gis ci moom sëriñ Touba. Euh, gis ngeen alaaxa bi mu amoon ak mu Mouhamadou lamin Baara borom guy min seereel na ko seere bu rafet nee na nitu yàlla daf ci am ñoo xam ni fital képp la leen yàlla jox waaye joxu leen ay bal yu ñu ci def am ñu am ay bal te amuñu fital am ñu am bal fital waaye amuñu ndigalu tiire am ci nag ñu am balak fital am ndigalu tiire te ñu luppe mukk ci nguuru yàlla lu luñ diir jam ko ni sëñ Baara noonu la mel digganteem ak sëñ Abdoul Ahad keroog bi muy dem Màkka 1976 euh, yàlla dogal na sëñ Abdoul Ahad mi nga xam ni moo doon sëriñ Touba oto la jël yeb ci njaboot gi boole ci alaaji Baara Fadilu seen doom ja di doomi sëñ Fallu ni ko daa am lu ma lay sant man sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdoul Xaadir mii dama ñor ñor goo xam ni maay demal sama bopp màkka di ko saytu ma bëgg nag fitna ga am màkka ca tawaaf ba bu mu ko jige yow nag laa dénk wàllu kaaraangeem nag ma ko toppatool ba dara bu ko xoos boo ko toppatoo ba dara xoos ko ba dellu si li nga bëgg dinaa ko ñaan Serigne Touba te dina ma ko defal ci yow Serigne Alaaji Baara nee na àgg nañ ci bi Serigne Abdoul Xaadir di tawaaf dama koo boot di wër ak moom kon noonu la demee woon ak moom digganteem ak Serigne Saliou dégg naa sëriñ Abdou Samad yi bu mu wax Abdoul Xaadir moom la yónni ni ko demal ca sëriñ saaliwu nga ni ko tey la altine waaye alxamis dama koo bëgg a si nee dama fekk sëñ saaliwu mu mel ni sedd bi da koo xaw a sonnal lool ba mu banku ci lal bi ba ma ko waxee nee na mu daal ni ñokket ni kon alhamdulilah xëy na kon fii ak alxamis danaa fi wér pëlëg ndax Cheikh Abdoul Xaadir ko bëgg boo demee itam nee ko na ma ñaanal nee na bi ma ñëwee wax ko ko dani incha allahu tey ci fajar dinaa ko defaalal ay dog noonu lañ demee woon ñoom ñaar noonu la demee kër sëriñ yi waaye kilifa gu ma sa ci liggéey mooy taxaw taxawu la jullee la nga am yaakaar xam ni daa mel ni Serigne Touba moo la taxaw jëmm la joo xam ni ah dundam diggante 1914 la ba 1990 waaye yar na ñëpp ci topp waxtu julli yar na ñëpp ci fonk waxtu julli gis ngeen julli gi mu jug dem di julli ji yàlla dogal muy taw mu xuus ci taw bi dem ñu ne ko Mbàkke de taw beenu jaaxaloon mu ni xuus ci am ndox